الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أعظم النعم نعمة المال والرزق هذه النعمة التي تقوم عليها وتؤدي من خلالها كثير من النعم ولا يستغنى عنها مخلوق حي حتى الطيور تبحث عن أرزائها في غدوها ورواهها وهذا المال مال الله تعالى يودعه عباده ليبتليهم أيشكرونه أم يكفرون قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وقال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi suñu xutba tey mooy al infaq fi sabilillah mooy joxe ci yoonu yàlla tabaraka wa taala comme ni ngeen ko xamee xéewalu yàlla yi tabaraka wa taala dafa bari kenn mënu ko takk kenn mënu ko wàññi xéewal yi allahu subhanahu wa taala dafal doomu aadama kenn mënu ko takk waaye kenn mënu ko wàññi moo tax moom borom bi mu ne wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuha su ngeen doon jéem a lim wala ngeen di jéem a takk xéewal yi allahu subhanahu wa taala sotti ci yéen mu ne mënu leen ko ñu bari fi ñun nag dañuy jàpp ne xéewal moom mooy alal ku amul alal amul xéewal waaye ndeke mbokk yi loolu mooy li gën a tuuti ci xéewal yi yàlla tabaraka wa taala dafal ab jullit dafal ab doomu aadama waaye alal ci la bokk ak wërsëg wu bari xéewal yooyu nga xam ne ci la doomu aadama war a sàkkoo tiyaaba yu ko yàlla di gërëme xéewal yooyu nga xam ne picc yi sax bu ñu xëyee ci seeni biiri kër dañuy dem di ko sàkku ji pour borom bi tabaraka wa taala jox leen ci xéewal yooyu ci hadisu omar ibnu alxataab radiallahu anhu wa ardaahu mu ne law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruuhu bitana ki yàlla yónni woon ci jaam ñi mu ne su ngeen wakkirlu woon ci yàlla dëgg-dëgg wakkirlu moom yàlla tabaraka wa taala dana leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi picc yi bu ñu xëyee dañuy xiis génn waaye balaa ñuy delsi dana lekk ba suur ba dencal seeni doom yi nga xam ne ñu ngi ci biir néeg yi buñ ñëwee ñu jox leen ñu lekk fan lañ ko jëlee mooy yàlla moo leen ko wërsëgal ayuha al ahbab waaye ñu bàyyi xel ne alal jooju yàlla jox la yow jaamu yàlla yow jullit yàlla daf la koo dénk yàlla jox la ko rek pour ngay puukare pour ngay wanewu wala nga ciy caaxaan bal allahu subhanahu wa taala daf la ko jox pour nattu la muy xool moom yàlla ayashkuruunahu aw yakfuruuna ndax yéen ñi yàlla jox da ngeen ko ci sant wala da ngeen ko ci weddi moom yàlla mu ne wa amdadnaakum bi amwaalin wa baniin man yàlla maay ki leen may alal waaye ak ay doom moo xam moom yàlla mu ne wa ka ayyin min daabba yamatu rek ci doomu aadama waaye dana lépp luy dukkat lépp luy noy lépp lu am ruu borom bi ne loolu day mënta indil boppam wërsëg bal allahu subhanahu wa taala moo koy wërsëgal xool leen géej la koy dund ci ay mbindeef mbokk yi mbindeef yooyu nekk ci biir géej gi kan moo leen di wërsëgal allahu tabaraka wa taala xool leen ci biir àll bi rab yooyu nekk ci biir àll bi kan moo leen di wërsëgal allahu tabaraka wa taala xool leen janaaw yi ñooñu kan moo leen di wërsëgal allahu tabaraka wa taala xool leen doomu aadama yi kan moo leen di wërsëgal yàlla tabaraka wa taala xool leen jinne yi kan moo leen di wërsëgal yàlla tabaraka wa taala moo tax mu yonent yàlla Suleymaan benn bis dafa toog ci nguuram mu xool li ko yàlla may ci xéewal moo jiite doomu aadama yi moo jiite jinne yi moo jiite njanaaw yi maanaam Souleymane moom gouvernement am yemul woon ci doomu aadama yi kese bal Souleymane dafa nekk yonent ak malik nekk buur ñaar la boole dafa nekk buur ba pare nekk yonent waaye gouvernement am yemul woon rek benn espace bal lépp la Souleymane boole woon gouvernement bi dafa rëy ba ay fas pour ñu garder buur bi ak yonent bi loolu du doy ay moto ak ay oto loolu moom kenn waxaale wu ko bal ngelaw li Souleymane bu waree dem ngelaw li mooy wàcc Souleymane daal di yéeg ngelaw li daal di koy yóbbu yàlla mu ne xuduwuha shahr wa rawaahuha shahr Souleymane xool loolu lu mu dee mu ne yàlla damaa bëgg nga bàyyi ma ma dundal adduna bi é yàlla mu ne Souleymane mënoo ko de te weer rek yow yàlla weer wala mu ne Souleymane am nga doole de waaye mënoo ko nag mu ne yàlla mënu ma ko dundal weer yàlla mu ne déedéet mu ne waa bàyyi ma kon semaine yàlla mu ne Souleymane mënoo loolu mu ne yàlla kon ñetti fan yàlla mu ne Souleymane mënoo ko mu ne yàlla kon may ma ma dundal nit ñi ma benn fan ma dundal adduna bi benn fan yàlla mu ne Souleymane mënoo ko mais jéemal mënoo ko nag waaye essayé Souleymane daal di dajale jinne yi dajale doomu aadama yi 4 kilomètres carré Souleymane togg ko ay lekk 4 kilomètres carré lépp lekk ay lekk cin yu gën a rëy suñu cin yi bal ay bëri yu gën a rëy loo yaakaar li gën a rëy la Souleymane indi parce que jinne yi ñooy liggéey bu ñu toggee ba pare. ñu indi plat yee tudd yi ñu war a servir adduna bi tey Souleymane mooy jox adduna bi ñu lekk Souleymane mu ne yàlla pare na yàlla mu ne ko séddaleen Souleymane séddale ba mu jeex mu ne yàlla pare naa yàlla mu ne woowal ñu lekk woowal mbindeef yëpp ñu ñëw lekk Souleymane ñoo ne ñëw leen ci xéewalu yàlla yi benn mbindeef moo génn ci biir géej gi daal di boole cin yi ak kuddu yeeg palaat yeeg taabal yëpp daal di koy lekk daan ne ko Souleymane ragalal yàlla suura gu ma de benn nga ma jox te man yàlla ñett la ma doon jox par jour lii nga ma jox nii yàlla ñett la ma doon jox te yow benn nga ma jox te ñeneen ñi lekkaguñ de kenn moo lekkagul te kooku nee na suuragul allah kon yàlla mooy kan ci ñun xool leen adduna bi bu leen xool seen bopp ba seen xel ak seen xalaat lu mu xalaat lépp yàlla mu ne wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha waxul nit de waxul wa ma min bani adam wa ma min jinn la wa ma min daaba lan mooy daaba mooy lépp luy dukkat fi l ard illa allah yàlla mu ne man maa garde maa yeyoo maa chargé wu man yàlla risquha lu muy dundee du benn fan de du ñaari fan de bal bu muy gane àddina ba ba muy dee man yàlla maa koy dundal allahu akbar moo tax yàlla mooy dundalaate mbokk yi kon alal jooju yàlla jox ñu moom yàlla lan la namm ci ñun mooy ñu def ko fi sabilillah ginnaaw al infaq mooy anwaaul infaq al masruu yan doomu aadama bu am alal bëgg a liggéeyal yàlla sa infaq boobu ngay def ci ñaari anam rom nga ko mën a def waajib ak mustahab sa alal yenn saa nga def ko fu war wala nga def ko fu ñu sopp feneen foo def sa alal lu dul ñaar yi bal sànq nga sa alal te ëllëg yow ma qiyaam dañ lay laaj sa alal ji foo ko jëlee ak foo ko dugal bu fekkee waajib fi nga war a def asa alal mu war mooy kal infaaqi ala nafs yow da nga war a dépassé ci sa bopp wal walad say doom wa zawja sa soxna wa aadaai zakat al mafruud nga génne alal ji azaka bi ci war bi yàlla farataal sa kaw ak yeneen yoo xam ne boroom xam-xam yi liñ dañ ko ci tomb yi bal yëgal ne sa njaboot yëgal ne sa soxna yëgal ne say wayjur góor ak jigéen yëgal ne yow farata la ci yow nga del sa alal dépassé ko ci ñoom loolu mooy alwaajib fi war fi nga war a def sa alal bu fekkee mustahab fi ñu sopp foo xam ne war nga faa def sa alal mooy sarax yi ngay saraxe di volontaire wala nga bëgg tiyaaba wala sarax yi ngay sarax jëriñ yi ak ñi seen jëkkër faatu ak miskiin yi ak faqiir yi ak yi ngay jël di ko def ci yenn muassasaat yi yenn fondation yi nga xam dañuy tabax ay jàkk dañuy bënn ay teen dañuy gas lu mel ne ay teen lu mel ne tabax jàkk lu mel ne tabax école lu mel ne tabax dispensaire lu mel ne jënd nit ñi ay garab foofu def fa sa alal na nga yëg ne dañ koo sopp ci yow du farata waaye lu ñu bëgg ci yow la nga def sa alal ndax jullit yi mën a jëriñu bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala samaratul infaq al mashru ki jël alalam di ko def ci yoonu yàlla alal boobu mu jël di ko def ci yoonu yàlla mbokk yi lan la koy jural bi ci njëkk mooy duxulul janna alal jooju day jàpp sa loxo ëllëg yowmal qiyaam daal lay dugal aljanna kooku borom bi tabaraka wa taala moo ko wax mu ne wa saariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lilmuttaqin man hum ya rab almuttaqin alladina yunfiquna fi lsarai waldarai walkadimina alghayz والعافين عن الناس والله يحب المحسنين borom bi nag gaawtu leen jóg leen ngeen gaaw daw leen foog leen fan ngeen jóg mu ne ila magfiratin min rabbikum ci luy fexe yàlla baal leen allahu akbar jóg leen ngeen gaaw fan lañ jëm mu ne jëm leen ci loo xam ne bu ngeen ko defee yàlla jéggal leen loolu fan la yàlla mu ne ci aljanna jóg leen ngeen jaw jëm aljanna gaawtu leen aljanna joo xam ne yaatu na asamaan ak suuf aljanna jooju yàlla nee na maa ngi ko dencal maa ngi koy préparel almuttaqin yow yàlla ñan ñooy almuttaqin ñan ñooy ñi ragal mu ne ñi nga xam ne allazina yunfiquuna fi sarra wa darra ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko joxal di ko joxe ci yomb-yomb ak jafe-jafe su yombee ñu ngi joxe su mettee ñu ngi joxe ak ñan mu ne wal kaazimina al gayz ak ñi nga xam ne dañuy mer dañ leen di tooñ ñu mer waaye ñu wan na mer bi duñ ko feeñal yàlla ak ñan mu ne wal aafina ani naas ak ñiy baalaati ñiy jéggale yàlla mu ne wallahu yuhibbul muhsinin yàlla bëgg na kuy rafetal ndekk adduna bi li ñuy bëri bëri bëri ñiy julli ñiy woor ñiy joxe azaka ñiy aji ndeke nit ñi li ñu bari bari bari bari yàlla ñan la bëgg inna allaha yuhibbu almuhsinin ñii def lu rafet ñooñu la yàlla bëgg nit ñi li ñu bari bari jaami yàlla yi seen jaami yàlla ni mu wuutee ñan la yàlla gën a bëgg ci ñooñu mooy ñi nga xam ne jaamu yàlla boobu buñ koy def dañ koy rafetal yàlla subhanahu wa taala ne wallahu yuhibbu almuhsinin aaya bi mbokk yi zeyn al abidin kenn la woon ci jaami yàlla yu baax yi danañ jàpp benn jaamam di ko sottil ndox jaam bi tiim ko ak satala bi di ko sottil ndox satala bi daal di rëcc ci diisaay bi daal di toj jëbi dal ci jëbi daal di jëbi daal di toj moom ni mu doon raxase nii rek kanam gi mu daal di gis deret di wala ngaan jóge ci jëbi jëm ci kanam gi di wàcc ci yére yi lan moo tax jógi satala bi ci daanu kan moo waral satala bi mooy jaam bi ko doon sotti mu siggi xool jaam bi jaam bi ne ko wal kaasimin al gays yàlla bëgg na ñi me nga xam ne bu ñu meree dañuy wann seen mer allahu akbar mu ne ko kazamtu gaysim wan na naa sama mer mu ne ko wal aafina ani naas yàlla bëgg na ñi baalaate mu ne ko afawtu anki baal naa la mu ne ko wallahu yuhibbu almuhsinin yàlla bëgg na ñiy def lu rafet mu ne ko libéré naa la demal bis ni ki tey nekkatoo jaam gis ngeen alquran ni mu doon def waaye alquran boobu ñu doon def mooy jaam yi la ko doon def ak góor yi xoolal kii jaam la mais mokkal na alquran xoolal sang bi góor la waaye mokkal na alquran waaye ñoom ñaar ñëpp alquran boobu yemuñ ko ci mokkal waaye dañ koy dund ñoom ñaar kii bi mu xamee ne kii mer na te meram gi alxuraan boobu moo ci mën dara bañ ko joxee aaya yi rek comprimé yi wér na dara xew gis ngeen waaye bu doon ñun la su ko waaji woon baqara alif laam miim bu ne ko dara yow xam nga ne parce que ñun alxuraan mën a lun dara ixwatul iman ndekee kuy joxe alalam ci yoon yàlla na yëpp ne loolu muy joxe li mu ciy njëkk am ci fruit mooy day dugg aljanna ñaareel mooy alwiqaayatu min annaar yàlla daf koy musal ci safara borom bi tabaraka wa taala wax ci quran ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci hadisu cheykhayn mu ne anna nabi sal allahu alayhi wa sallam qaal ittaqu nnaar walaw bi shiqi tamra mooy ci leen safara nan la ñuy mooy tee safara mu ne même bu ngeen yoree benn tàndarma ndogu jot nga yor benn tàndarma yoroo lu dul loolu nga nekk ak sa yenn mbokku jullit yonent bi ne nga dagg tàndarma bi ci digg bi nga jël genn wàll nga jox sa mbokku jullit genn wàll ndax genn wàll gi nga ko jox daal lay musal ci safara walaw bi shiqqi tamra allahu akbar walaw bi shiqqi tamra ne que li nga yor kenn waxul mu bari li nga yor kenn waxul mu yem waaye dañu ne lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti bàyyi ci xel sa mbokku jullit loolu lan la lay jural mooy yàlla daf lay musal ci safara waaye yàlla daf lay jéggal say bakkaar ixwatal iman yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na assadaqa tutfiu lxatia kama yutfiu lma annaar yonent bi nee na sarax sarax assadaqa la wax mu ne tutfiu lxatia dafay dindi bakkaar yépp yu ñaaw nit day def lu bon mu saraxe sarax bi daal di effacer bakkaar bi ni ndox di faya safara nit day def lu ñaaw nit day def lu bon nit day def lu neexul yàlla waaye mu saraxe sarax bi daal di effacé bàkkaar boobu mu defoon yonent bi nee na kama yutfiul ma an naar comme safara ni muy faye ndox mbokk jullit yi ñetteel ci sarax lu muy def min samarati l infaq taksirul xasanaat dafay bëri sa tiyaaba daf koy double yàlla moo wax loolu ci quran masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم yàlla nee na misaal bi may joxe ci ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko def fi sabilillah mi ngi mel ne ki jël mboq daal dem ci àll ba daal di koy ji ba muy ji benn la defoon wala ñaar waaye bi garabu mboq bi safee garab bu nekk am na ay cab yu ci génn cab bi mbokk cab yooyu benn bu nekk am na téeméeri doom yu ci nekk waaye ji lan la defoon benn wala ñaar wala ñett wala ñeent waaye bal bi ko yàlla bi fu na ni lan la ko def fi kulli sumbula mi atu habba yàlla fay na ko téeméeri bépp kon ki nga xam ne dafa jël alalam di ko def fii sabilillah borom bi tabaraka wa taala nee na melakaan bu mel noonu laa koy fay borom bi nee na wa aqimu salaa wa aatu zaka wa aqridu llaha qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr tajiduhu inda allah huwa xayran wa azamu ajra wastaghfiru llaha inna allaha gafuru rahim yàlla nee na taxawal leen julli joxe leen azaka lebal leen yàlla lebal bu rafet yàlla nee na na ngeen xam ne lépp lu ngeen mën a def ci lu baax seen bopp ngeen ko defal wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr lépp lu ngeen mën a def ci lu baax lu ngeen defal seen bopp borom bi nee na tajiduhu inda Allah di ngeen fekk ci yàlla mu enregistré leen ko yàlla dencal leen ko du maxe du rab borom bi nee na jéggalu leen ma man yàlla ndax yàlla damay jéggale damay yërëme yal na nu yàlla jéggal yërëm nu أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله من ثمرات الإنفاق النقطة الرابعة الإنفاق tutahiru lil munfiq ki joxe ci yoonu yàlla loolu mu joxe daf koy laabal ci ay bakkaar wa tazkiyatun lil qalb bal loolu day setal xolam wa tanmiyatun lil maal bal loolu dafay duble alal ji mu gën a bari wa salaamatun lahu min al afaat waaye bal loolu sax daf koy musal ci ay jafe-jafe ak ay problème borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran xuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yow yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jëlal ci alalu gaa yi jëlal la ko yàlla wax loo xam ne sarax lay doon loolu nag daf leen di laabal loolu daf leen di setal ci seeni bakkaar ndeke kon bokk na ci firnde yi nga xam ne kii joxe alalam ci yoonu yàlla alal ji daf koy laabal ci ay bakkaar alal ji daf koy setal alal ji dafay set waaye moom ci boppam alal ji day setal bakkanam mbokk yi tomb bu mujj mooy aadaabul infaq tegginu kii joxe kii joxe dafa am teggin teggin yooyu bu ci njëkk mooy al ixlaas kii joxe na joxe ngir yàlla kii joxe na yàlla tax muy joxe mooy lan tajridul ubudiya lillahi taala man de damay joxe ki tax may joxe kan la yàlla laa yusawibuha sawaib riyaan aw suma bu dara la ngaamu bu dara laxasu ci li ngay def lii may joxe lii may def bugguma ci dégg talu bugguma nit ñi dégg ma lii may def bugguma cee ngistal buggumaa feeñ bal li tax ma koy joxe mooy allahu tabaraka wa taala moo tax may joxe moo tax yonent bi ne jëf yëpp li ci gën a rëy mooy sellal yéene innama al amal binniyat wa innama li kulli mriin ma nawa lan mooy différence diggante may ak saraxe yéene moo leen takkale waa ji dugal na loxoom ci poosam génne na joxe na yàlla rek moo xam waa ji lim def ndax dafa maye wala dafa saraxe kooku yàlla la lan la ko yàlla di tàqale mu yéene waa ji la ko yàlla di fay ca la mu joxe kon adaabul infaq li ci njëkk mooy al ixlaas na sell kii joxe na joxe ngir yàlla su joxee ngir yàlla mu am tiyaaba su joxewul ngir yàlla du am tiyaaba ñaareel mooy adamul mann wal aza ki joxe bu mu jox waajee ngir lan damaa bañ waaj yi làmmiñam bu rëy bi su ma ko joxul daf may war wala kii kat moom naa ko jox ndax mu jël sama tur yóbbu fële daan may tagg ñaar yooyu boo ko defee amoo tiyaaba ndax borom bi tabaraka wa taala daf koy tere lan mooy man mooy atahaddus bi ma utiya hatta yablugu zalika al muti fa yusihi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ndeysaan ñoom soo leen joxee rek ñu taxaw ci mbedd mi foo tourné rek ñu yuuxu loolu baaxul am na koo xam ne su joxee mooy day taxaw di xaar ñu tagg ko yëkkati ko filmé ko photo ko wane ko suñ deful loolu mu ne ëllëg dootuma joxe ndax barki démb bi ngeen di laaj joxe naa ko dégg ma sama tur te maa nga ko joxe te xam ngeen man li ma joxe kenn joxewul toll noonu bu ngeen di laajaat bu leen ñëw fi ci man d'accord kooku yàlla taxul te nag looloo bëri tey te ñooñu ñooy ñi nga xam ne iblis moo leen di taxu moo tax borom bi tabaraka wa taala woow ñu ci baatu ngëm ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal aza kalladi yunfiqu maalahu ria annas wala yuminu billah wala yuminu billahi wal yawmi al axir allahu akbar fa masaluhu ka masali safwan عليه تراب فأصابه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين sunu xutba tey du yemoon ci benn aaya bi mu doy borom bi tabaraka wa taala ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax ci ñaxtu ak wax ak bëgg a siiw ak bëgg ñu dégg leen kon waa ji nga xam ne day joxe alalam waaye gëmul yàlla gëmul àllaaxira waaye mu ngi joxe alalam de mais gëmul yàlla gëmul àllaaxira waa jooju bi ko yàlla di misaal yàlla nee na waa ji dafa mel ne xeer ka masali safwaan mooy xeer bu ñuul kukk bu rittax comme xeer yi ñuy jàppee xeer boobu dafa rittax ba pare suuf nekk ci kawam suuf soosu bi mu nekkee ci kawam ndox daal di ñëw wàcc ci kaw xeer bi suuf sa sa nekk nu muy def day rittax daal di glissé daal di dem lu tax parce que xeer day rittax parce que ndox moo ci dal kon xeer bi dafa rittax te ñuul kukk xeer bi mën a téye suuf si bi ci ndox wàccee ndox mi dafa raxas xeer bi mu set yàlla mu ne kiy joxe te joxewul ci ngir yàlla noonu la li muy joxe mel ka masali saxwaan alayhi turab fa asaaba fa asaabahu waabil fa tarakahu saldan kon kuy joxe mbokk yi nañu joxe ngir yàlla fi sabilillah daaw bi ñu demee Casamance ñëwaat dañu defoon contrat bi xutba juma ak dars àllarba la woon wala samedi wala allahu alam ñu soññ mbokk yi pour ñuy jàppale ñu dem Casamance mbokk yi daan ñu ne loolu bu jotatee na ngeen ñu ko wax pour ñu def ci fi sabilillah ñun bu ñu mënul tamit sunu poos ak sunu loxo daal di dem mbokk yaa ngi leen di tàggu incha allah le 19 dañuy dem Casamance. dañuy dem Ziguinchor dañuy dem Sédhiou danañ dem Diouloulou danañ dem Marsassoum danañ dem Goudomp yaakaar naa bu ma juumulee ci luñ wax fukki fan ak ñaar danañ ko def ci biir Casamance kon mbokk yi su ngeen mënulee dem fii sabilillah ngeen jàppale mbokk yooyu bu ñu paree incha allah julli lu waay man incha allah ci jàppale mbokk yooyu fii sabilillah incha allah mu def ko allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibaahi وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله